fi nekk doon na ko ŋàññi bu baax a baax nag jamono ji ay chamboulement am na ca biir gendarmerie nationale ndax ay coppite indi nañ ko ca légion ouest bu ndakaaru jëlee nañu fa kii di lieutenant colonel Abdou Mbeng yéene kaay bi ne gendarmerie nationale kay kii di général Martin fay nag ma ngay placé ay nitam ay coppite yu bëri la ñu nemmeeku ca rang yi nga xam ne rek ñoo gën a kawee ca biir gendarmerie nationale fu ci mel ni légion bu Thiès ca Kaolack ca Fatick jàpp Ziguinchor ñoom ñëpp am nañ ay patron yu yees section de recherche bu Colobane ak bu itam jot nañu seen wàll ci nar wi yi Sud Quotidien xëyee ni ki tey ji nag ci leneen loo xam ne rek moo jëm ci yeesal yi ñu doon indi nag ci règlement intérieur bu assemblée nationale yéene kaay bi ne assemblée jamono ji nag daa mel ne lu ci sax noppi tëx ndax benn ayu bés ginnaaw bi ñu proposé ñaari loi yoo xam ne dafa jëm ci indiwaat ay yeesal ñeel règlement intérieur bi nga xam ne rek moom élimaanu joriñ bu Sénégal dafa xam la woon nii bu ñu ko soppiwul du fa ñëw mukk ngir amal fa ab déclaration politique générale loolee waral nag mu joxoon leen àpp fukki fan ak juróom ci weeru juillet atum 2024 yéene kaay bi nag ne ni ba fii daal dara soppeekoo gu nag assemblée nationale yeyul yàbbi benn yoon na ñeel ñaari proposition de loi yi nag dafa mel ni daal groupe parlementaire majorité bi nag dañoo bëgg a wéyal xeex boobee nga xam ne rek moom la ñu sumb ci seen digganteeg élimaanu joriñ bu Sénégal di Ousmane Sonko les éco yëgle kaay fellu ko ne jamono ji kay nag coow li am ci diggante législatif beeg exécutif bi nag kii di Alioune Tine Moundiaye Cissé Babacar Gaye ak ki nga xam ne rek moo di Abdoulaye Fofana Seck ña nga cay ci suuf tànku jàmm wax ci enquête yëgle kaay mi nga xam ne rek moom xëyee na ci li nga xam ne rek moo di calcul ak stratégie bi nga moom la ñu fi nekkoon ay candidat ci élection présidentielle yi nekkee jamono ji nag yéenekaay bi ne ginnaaw élection yaak léegi nag kenn déggu leen ñu àddu jëmale ci xew-xew yi nga xam ne rek moo fi jot a jaar ci nguurug Jomaay Sonko rawatina ci lu jëm ci li nga xam ne rek moo dox ci diggante législatif bi ak exécutif bi Vox Populi moom xëyee kàddu Abdou Latif Coulibaly mi nga xam ne rek ma ngay def ab bilan bu jëm ci téeméeri fan yi nga xam ne rek moom la duyoo jamaay ak Sonko nekkee ci bopp réew Sénégal yéenekaay bi ne téeméeri fan yoo xam ne ne rek ñaar téeméeri promesse yu ñu jëfewul moom lañ ca daal di nemmeeku ci nguurug jomaay ak sonko ci biir yëglekaay bi moom Abdoulatif Coulibaly di xam ne ne bu fekkente ne jomaay accepté na bile situation mën nañoo ànd doxal waaye bu fekkente ne ñàkk déggoo am ne rek faaw kenn bàyyi ki ci des mu daal di jiitu moom Elimaanu joriñ bu Sénégal dafa war a xam ne nag moom du président de la république lépp lu muy def rek da ko war a def ci suuf mu bañ koo fësal Abdoulatif Coulibaly nag àddu jëmale ci jafe-jafe yi nga xam ne rek moo am ci jamono ji ci diggante nguur geeg way taskatu bi nag ngay xam ne ni ñëpp xam nañ ne nag presse bi dañoo war a fay impôt waaye nag laataa ñoo fay impôt xanaa ñu fay ba noppi seen ay salaire entreprise yi nag dañuy débrouiller rek ngir fay seeni salaire waaye responsabilité bi nag dafa partagé ci diggante état bi ak média yi ndax fi mu toll ni nag fii ci réew Sénégal journal bu nekk ñu ngi ko fiy nemmeeku ndakaaru nag moom li fi nekk ci ay journaux yu juddu bés bu yàlla sàkk kenn xamut nu mu toll te loolee lépp nag dañu ko war a lijjanti Walf Quotidien àddu moom itam jëmale ci bilan bi nga xam ne rek moom la daal di amal ci téeméeri fan yi nga xam ne rek ci lañ fi daal di nekk bopp réew Sénégal yéenekaay bi ne Bougane Gueye Dany jamono ji nag ma ngay dal bu baax ci kaw Ousmane Sonko ñii di waa LD Debout nag di fàttali jomaay ngir mu daal di jëfee promesse yi nga xam ne rek moom la digoon askan wi Les Échos yëglekaay fell ko ne téeméeri fan lañ fi defagum waaye Bougane Gueye Dany bàyyilul dara couple bu jomaay ak Sonko moom Bougane Gueye ma ngay xam ne ni nag jamono ji dañoo nekk di dal ci kaw secteur privé bi ak di leen xoqatal bàyyi fi li nga xam ne rek moom mooy jafe-jafe askan wi évidence yëglekaay ne Bougane Gueye kay jamono ji nag ma ngay woy di ŋàññ régime bu yees bi nag jàpp ne projet yi nga xam ne rek moom lañ fi taxawaloon dig askan wi nag ne dinañ leen indil ab rupture loolee lépp dara amu ca askan wi ci misère gu méttee métti la ñu nekk tribune yëglekaay ne lu jëm ci wàllu immigration clandestine moom Bougane Gueye Dany ma ngay joxar bi baaraamu tuuma président Diomaye Faye ne téeméeri ndaw ña ngay faatu ci géej gi te loolee nag kii di Diomaye ak Ousmane Sonko yëgaluñ ko sax seen yàpp yaram rax ci dolli ay jigéen ak i tànk yoo xam ne rek ñu ngi dund ci biir mënd mi ak ay jafe yu kenn xamul au lieu ñu ay saafara ci lu ni mel waaye defuñu ko ñu ngi dal ci kaw secteur secteur privé bi ak di leen xoqatal keneen koo xam ne rek mi ngi sàkku ci nguurug Sénégal ngir mu daal di dakkal tukki mu jaarul yoon mi bokk na ci Amadou Ba mi xam ne rek ma ngay àddu jëmale ci juróom-ñetti fukki migrant ak juróom-ñeenti yi nga xam ne rek faatu nañu ci waaxu Mauritanie moom Amadou Ba mi fi nekkoon élimaanu joruñ bu Sénégal ma ngay àddu jëmale ci musiba moomee nga xam ne rek am na ci biir géej gi gis na yaakaar gu tas moo poussé ndaw ñi ba ñu dugg ci géej gi ba di ci ñàkk seen bakkan loolee waral nag moom Amadou Ba di yëglu bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bii di Vox Populi ma ngay sàkku ci nguur gu yees gi ngir mu daal di créer ay structure de soutien yoo xam ne rek daañu ko jagleel ndaw ñi addu jëmale ci yëglekaay bii di Le Quotidien moom xëyee na ci vague d'agression yi nga xam ne rek moom la ñuy amal jëmale ko ci kaw soxna yi foofee ca Kafountine yéenekaay bi ne jamono ji jigéen ñi nelawatuñu ba yandoor yëf ya nag ma ngay gën di jéggi dayoo waral nag jamono ji jël nañu ay mesures yokk lépp lu jëm ci wàllu surveillance bi foofee ca biir gox ba addu jëmale ak bés bi le jour tey jii mi ngi xëyee ab dossier bu yaatoo yaatu nag jëm ci li nga xam ne rek moo di tabaaba ñu ne ab xeetu drogue boo xam ne rek jigéen ñi dañu seeni kanam daal di koy boole ak xemee yéenekaay bi nag jël ay témoignage am na koo xam ne rek ma ngay xam ne ni moom bu ko defee nag ci kanamam dootul soxlaati góor ndaw si nag di xam le ci biir yëglekaay bi nag ne moom tabaaba mooy ñaareelu jëkkëram foofee ca diwaanu Casamance yéenekaay bi ne góor ñi ñoom ña ngay ñaxtu fu ñu toll ci wetu bàjjenu gox yi nag tabaaba ma ngay jur ay divorce yu bëree bëri docteur Abdoulaye Diop di ab gynécologue moom ma ngay leeral ci biir yëglekaay bi ne produit boobee nag mën naa doon responsable cancer yi nga xam ne rek moom la ñuy faral di nemmeeku ci butitu njurukaay bi bi addu jëmale ci wàllu tàggat yaram réew mi sport xëyee nag lu jëm ci wàllu euro 2024 ne Espagne ak France jamono ji nag mooy choc bi nga xam ne rek moom la ñuy xaar ci diggante ñaari philosophe ci lu soxal wàllu demi-finale yi wàllu lamb la ñuy addu jëmale ak face à bu njëkk bi nga xam ne rek dox na ci diggante Modou Lo ak kii di Siteu yéenekaay bi nag dellu siwaat ci janoo boobee nga xam ne rek dox na ci diggante ñaari mbër yi Modou Lo ma ngay xamal Siteu ne ko man duma benn jeune lutteur Siteu di ko tontu ko may nga chance ab guerrier mbokk yi léegi noonu fa séeglekaay yi